mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah dellu si nañ beneen yoon di leen nuyu di leen ziar ni ñu ko doon defee talaata bu nekk chaque mardi ci waxtu wi ñu ngi ko fas yéene defaatee noonu mooy fekk si Serigne Cheikh Omar Diop fii ci këram ci Nord Foire waxtaane thème bàyyi nit ñi poser seen question mu tontu si ay laaj. waaye waxtaan bu nekk ñi sukkandiku ci benn thème nit ñi nag ku ci nekk boo amee sa laaj mën nga koo laaj les question seront diverses ku ci nekk sa laaj boo am man nga koo laaj ci sa wàllu néegu sëy ci sa wàllu liggéey ci sa wàllu wér-gu-yaram ci say wàllu gént ci say wàllu gis-gis ci say wàllu projet ci say wàllu papier mënuñoo mënuñu koo jeexal ku ci nekk ak say laaj yoo laaj tey thème bi ñuy waxtaan ci wàllum biir réew mi ak bitim réew mi boo déggee biir réew ak bitim réew muy Sénégal yi nga xam ne dañoo nekk dans la diaspora ak ñi nga xam ne dañoo nekk fii ku fi nekk ku ci nekk am ci sa propre projet booy dox investissement yi ñuy def lu waral Sénégal yi mënul réussir investissement lu waral Sénégal yi mënul réussir maanaam projet wala projet d'entreprise ñuy waxtaan ci loolu tey laataa loolu sëriñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak jàmm ñi bisimilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyaaka naabudu wa iyaaka nastain idina siraata almustaqima siraata allazina anamta alayhim gayri almagdubi alayhim wala dalin yaa himmata sayqi ihdilina bi hada almahdari waltahti fi bi nasri tahti lana bi safar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yëpp qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen baal leen baal àq eh, ñu koy baaxoo comme ni ñu koy defee rek ci talaata bu nekk ci waxtu wi ñu toog jàkkaarleeg askanu Sénégal ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew seddoo ak ñoom. seddoog ñoom askan wi eh, ci li nga xam ni mooy liy jëriñ askanu Sénégal ak doomu Afrique lan moo leen di jëriñ ak fan lañuy aw ba mën a jot seen càkkutéef ci wàllu zahir ak ci wàllu baatin ñuy yëngatu ci wàllu ñaan ak ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu liggéey kenn ku ci nekk ca la nga nekk ñu fekk ci la sa waxtaan ci ak yow comme ni ko ni mu ko waxee léegi loolu moom moo ci nekk mooy dañuy jéem a dimbalanteeg yéen ci li nga xam ne mooy moo jëm ci wàllu euh, entrepreneuriat nga xam ne suñu Sénégal yi nga sénégalais suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi euh, di liggéey di am xaalis te duñ ko mën a réaliser ci réew mi sénégalais yi nekk ci réew mi. di liggéey di am xaalis te mënuñu réaliser euh, ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci wàllu euh, jaamu yàlla di ñaan yàlla ñooñu ñëpp kenn ku si nekk euh, yaa ngi ci dara pour bëgg loo ci yokk ak loo xam ne yaa ngi ci bëgg a jëriñu loolu moo tax nag ñu ne léegi danañ fexe waxtaan ak ñoom ci loolu li nga xam ne moo ci nekk ay tegtal yi ñu war a joxe yoo xam ne nit ki bu ko defee ci wàllu baatin mën a jot càkkutéefam ak li nga xam ne xalaat la boo xam ne bu ko nit ki jëfandikoo ci xelam ak ci activité am mën a jot ekotifam yëpp incha allah dinañ ko teewal ci jotaay kon nag soo euh, maa ngi lay déglu di leen wax bisimilah marhaban bikum bisimilah salaamaaleykum. waaw aleykum salaam wa rahmatullah comme ni ko waxee rek thème bi tey ci wàllum entrepreneuriat la. Mhm. wàllum investissement diaspora ak fii yëpp. Mhm. yow mi nga xam ne sa wàllum liggéey. Mhm. may na la seetlu yi. yow mi nga xam ne yaa ngi jëflanteeg ñi nekk fii ak ñi nekk ci bitum réew. yow mi nga xam ne peut-être sa dégg-dégg dafa xaw a dafa xaw a njaaxaanaay ci ñenn ñi. experts yi fi nekk yi li ne xam. ndax ñeneen ñi jëfandikoo. waaye da da ngay liggéey ñu ne fii liggéey ñu ne bitim réew. moo waral tey ñu choisir thème boobu. ñu ngi lay laaj ci sa seetlu. ci patient yi ngay wax ak. lan nga gën a seetlu ci jooy yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy jooy. fii ci Sénégal ak bitim réew ci wàllum. xaalis mhm. d'abord mhm. damay généraliser ci wàllum xaalis mhm. muy seen alal wala fi ñu dugal seen alal lan nga gën a seetlu nit ñi ngay jëfandikoo ñi liggéey ak ñoom ñi ngay ñu koy jooju loolu waaw li ma gën a seetlu bokk na ci ngay am alal te mënoo ko réaliser ay réalisation yoo xam ne dafay mujj ci fayit bokk na ci dama doon jaay daanu naa bëri naa ñu lu ma koy déglu sama activité doo doon dox doxatut bëri naa lu ma koy dégg man kat yàlla defal na daan nañu ma tudd tuddatuñu ma bokk na ci li bëri na ci li ma ko doon déglu li ma ci bokk na ci li may li may dégg ñu koy jàmbat euh, man lu ne defal naa ko nit ñi waaye tey maa ngi nii fii laa mujj loolu bëri na ci li ma koy déglu li ma koy dégg donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne dafa laaj ak jàngat benn bu ci nekk dafa nekk loo xam ne amul ci ñun kenn kum dalul wala koo xam ne dalul sa mbokk nga gis ko nga gis ne kii yàlla dogaloon na ci moom am départ bu baax gannaaw départ bi nga gis ne mujj gi affaire bi reculé na. mu dem dem ba yàgg affaire bi mel lu taxaw wala mu dem dem ba yàgg affaire bi mel ni euh, dañ ko koo joxoon rek nanguwaat ko loolu yëpp dafa am lu ko waral système bi nga xam ne ci lañ nekk di ci dund nga xam ne lenn li occidentaux ñu ko implanté lenn li waaw waaw bisimilah demal demal mi ngi dem ba tey waaw lenn li ci ñu ngi ñu ngi jéggalu ci dog-dog boobu de ndax euh, mënta ñàkk moog liggéey bi ñoo ànd waaw kon nag bisimilah hmm. euh, lenn li nga xam ne wàllu occidentaux yi nga xam ne ñoom ñoo ñu coloniser ñoom ñoo ñu ko ñoom ñoo ko indil mu nekk loo xam ne mbir mu doy waar la waaye mu nekk mbir moo xam ne mbir mu mbir doy waar la. waaw waaw. mu nekk mbir boo xam ne mbir mu doy waar la. Mm-hmm. Euh, mu laaj jàngat bu rëy. parce ñun Afrique dañu yàlla daf ñu may sens. daf ñu may sens boo xam ne yàlla dafa ñu may ñu nekk ay nit ñoo xam ne lépp lu nekk di ci yëngatu rek dangay gis barke da ciy am développé ci da ciy gaaw pour nga am ci développement dafay gaaw pour nga mën ci gaaw réussir dafa daf dafay gaaw parce que avantage yi nga xam ne yàlla may na ko Afrique moom moo tax donc lu mel ni particulièrement Sénégal nga xam ne zone la boo xam ne zone bu particulier la ci Afrique nga xam ne bëri na doomu Afrique doomu africain yi nga xam ne dañoo réussir jaar nañ Sénégal réew yu bëri yu de am seen ay développement ñi leen développé tey Sénégal lañ jaar ñu gis doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom en tant que sénégalais dañuy gis ñoo xam ne dañu nekk à l'extérieur yàlla may leen ñu am ay moyens foofu yàlla may leen ñu am xaalis mais da ngay gis ne dañuy fàtte seen dañuy fàtte ne seen dañuy fàtte seen retour te wala seen retour dootuñ ko bëggati mën nañ ko bañ a fàtte mais duñ am amuuru dellusiwaat fekk na am na ko waral waaye balaa ñuy egg ci ñi nga xam ne ñoo nekk euh, extérieur nga xam ne ñoom dañuy liggéey di am xaalis te duñu mën a réaliser dara mm-hmm. man damay man damay jëflanteeg ak immigré yi mm-hmm. li gën a bëri ci patient yi nga xam ne ñoo nekk extérieur di jëflanteeg man mm-hmm. sama sama patient yi boo leen xaajee boo leen xaaj ñaari xaaj benn genn wàll gi yëpp extérieur lañ nekk parce que damay jëflanteeg ñoom damay jokkoo ñoom téléphone dañuy ñëw dagg bi ñëw ci man di ma seet si di ma seen ay problème mais dama seetlu ci benn affaire boo xam ne expérience la bu ma ma dund mooy képp bëpp nit boo xam ne ñëw na ci man ma tëralal la stratégie boo xam ne euh, euh, pour nga mën a développer damay gis ne sa ñaari vacances rek ñaari vacances rek boo ko amee da ngay gis da ngay gis koo xam ne day def quinze ans wala 20 ans à l'extérieur du mën a réaliser dara mais a ah, il suffit que mu ñëw ma conseiller ko wan ko wan ko raccourci yu gàtt yoo xam ne moom lay teg rek dangay gis mu gaaw réaliser mhm. ñaari vacances rek da gis mooy ah man kat li ma gën a jafe mooy kër am naa ko léegi mhm. li ma gënoon a jafe mooy fon am naa ko léegi dangay gis ñu am beneen xar kanam bu bees mhm. donc loolu yëpp laaj na tey ñu def ci waxtaan ak li nga xam ne moom mooy wàllu ñaan ñi nga xam ne dañuy <coughs> sàkku ñaan te du ñu gis benn njariñ ci li ñu di ñaanal loolu yëpp waxtaan def ko laaj comme li nga xam ne nag laaj nga ma ko ci wàllu euh, ñi may gën a seetlu loolu ñooñu bokk nañ ci waaye ki nga xam ne dafa nekk sénégalais li nga xam ne dafa jug tey euh, dem extérieur dem ne dafay uti alal moom bi muy dem pour uti alal dafa am lu ko manqué mooy xaalis gis na ay moromam ñu ngi dawal oto gis na ñu jógee bitim réew ñëw na ñu ñu indi ay bien ñooñu ñëpp gis na ci ñoom loo xam ne xemem na bëgg a changer nga xam ne mooy dundam léegi mu mu dugg gaal dem walla mu dugg avion dem nekk Europe di liggéey waaye da gis ne su commencé liggéey dangay gis famille Sénégal famille bi nekk Sénégal ñoo koy kidnappé ñoo koy kidnappé ci ay ordonnance ñoo koy kidnappé ci ay euh, ngénte ñoo koy kidnappé ci ay dëj ñoo koy kidnappé ci ay céet ma gis ne am na benn faay boo xam ne ci côté boobu bëri na sénégalais yi nekk extérieur lu leen toroxal tey te ñu bëri ñu ngi rëccu man li may wax je parle en tant que connaissance de cause euh, bëri na sénégalais yi nekk extérieur di rëccu tey lan moo leen tax a rëccu seen famille Séné seen famille yi nekk ci au niveau du Sénégal. seen propre mbokk seen propre mbokk ñoo leen rey te mënoon na loolu mënoon na leen a ñàkkaa dal loolu moo tax partage dafa am solo nit ki su fekkee ne yaa ngi liggéey pour mën a pour bëgg a réussir dans ta vie. dafa am ay dafa am ay pàcc yoo xam ne danga koy def ci sa avenir bokkul ak ki nga xam ne yàlla dafa ñëw ak ay mbiram ci bopp ci moom nga xam ne yàlla moo ko xool rek xëpp ko xaalis loolu dafay am ça arrive mais nekkul tout le temps ki nga xam ne yàlla dafa ko may xel may ko ay jour may ko ay heure ne ko ci loolu nga war a développer ci nga war a aw kooku destin destin foofu la ko yàlla désigné foofu la war a aw kooku dafa war a xam ne il bi daal dans programme dafa dox ci kaw programme war a épargner war a organiser war a bàyyi xel tamit ci ñi nga xam ne ñoo koy ñëwal pour di ko di ko di ko di ko di ko solliciter li nga xam ne moom moo jëm entre entre moom ak ñi koy solliciter donc dafa am partie boo xam ne yàlla moo ko moom mooy li ñuy wax zakat asaka ah, yàlla moo ko moomal boppam moo ko laaj moo ko war a moo ko laaj sa alal ne na nga ko jox ñi nga xam ne ñoo ko moom bokkul ak sarax bi nga xam ne yow yaa ko war a sarax en tant que bi gëm yàlla ne jëf ju baax dina la jëriñ tey ak ak ëllëg te dina sécuriser sa alal loolu bokkul loolu da nga ko war a def parce que obligation la ci sa alal ak ci sa bopp ak sa diggante yàlla ak jaam ñi jaamam yi mais li nga xam ne c'est volontaire dafa volontaire dafa nekk volontairement ci yow nga xam ne loolu nekkul obligation nekkul force foofu la sa si foofu la sa développement nekk foofu nga war a mën a foofu ngay développé moo tax ñu bëri tey ñu ngi nekk ay à di liggéey da gis ko liggéey ba pare. jël alalam jël frère am bi mu bokkal ndey ak baay yónnee ko alal ji ba lekk ko. waaw nga baal ma yaa ngi toll foofu da gis koo xam ne dana liggéey jox frère am bu bokk ndey ak baay fii ci ko. Hmm. jàppal ma wax jooju. Hmm. ndax euh, émission ko tax a jug. Hmm. nee naa lii thème la. waaye itam question yi daf cee bokk. moo taxoon ñu sàkk émission bi boobu ba tey. ne suñu paree ñu dellu foofu nga toll ah sëriñ bi nga jégal ma. waaw waaye mu ne ñii ñoo am nañu njëriñ seen question. moom dafa wax neen moom nee na yàlla mi ngi koy sutural mi ngi Argentine. Hmm. moom mi ngi Argentine présentement. Hmm. nee na yàlla mi ngi koy sutural. Hmm. waaye j'espère que sax samay mbokk duñ gis tur bi déedéet yaa ngi envoyé message kenn kenn du ko gis noonu garaawul nee na moom. problème am mooy yëkkati xaalis joxe. yóbbante ko ay mbokkam ci Sénégal. moom moom waaw mënu ko. message bu gudd la. message bu gudd la nga jéggal ma tuuti. moom nee na loolu. nee na maa ngi gëñ ne rawal rawal jarul gëñ. Mm-hmm. nee na daal mi ngi mi ngi lay seedeel ni. Mm-hmm. mi ngi lay seedeel ni bëgg na yëkkati xaalis bi yóbbante ko fi ndax yàlla mi ngi koy suturaal foofu. Mm-hmm. waaye munu ko. dafa mel dafa am luy téye wala luy wax ci noppam pour mu jël xaalisam yónnee ko fii. moom neen loolu mooy problème dafa dafa am luy wax ci noppam pour di daal noonu la bindee message moom daal mel na am na lu koy téye pour mu yónnee xaalisam fii. doo ko kooku dafa war a ñëw pour def investissement fii warut a jël xaalisam rek bala euh, euh, sànni ko noonu comme ça. waaw d' abord ci am loolu dafa am xëy na. xam nga loolu en général li koy indi mooy. ci wàllum baatin quoi. waaw d' accord am na lu koy indi. parce que moom mën na am bi muy jugee Sénégal di dem. Mhm. dañ koo gaañ am na mën nañ ko gaañ kenn ku ko jaral yónnee alalam fii mën naa gàddaay dem mën na nekk loo xam ne psychologiquement dañ ko gaañ moralement dañ ko gaañ ba du gisati ci Sénégal fii ku ko jaral mu jël alalam di ko yónnee su dee ay propre waaju ko parent am ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def loolu wala propre ay frère am wala yooyu wala yooyu lu mënti doon su fekkee ne côté boobu nekku ca euh, na fexe mu jël mu jël li ma wax noonu euh, keroog loolu en général moo koy def mooy mu jël xobu laurier mu boole ko ak xobu ñàmbi bu mu weer ko ba mu wow mu suuroo ko loolu dina dindi li nga xam ne moom soo fekkee da nga bëgg a def dara am lu lay téye wala muy jàng ayatul kursi mu koy jàng soixante-dix fois su koy jàng yàlla dina ko dimbale li mu bëgg a def dina ko def bu dee rab moo ko def bu dee liggéey moo ko def loolu yàlla dina ko ko teggil loolu dafa nekk loo xam ne dafa bëri ay aspect yoo xam ne moo koy waral parce que nit ku am ay parents am ay mbokkam bëgg leen a dimbale mënu dimbale parce que am na quelque chose soit mu nekk côté zahir wala mu nekk côté baatin gëm naa ko sax ndax mi naan ci message bi j'espère que samay mbokk duñ gis lii maa ngi koy daral na ko message la message privé la kenn du ko gis waxuma sa tur kenn xamu ko donc moom kooku bëgg na mais waaw am na lu koy téye man dama koy conseillé na fexe mu ñëw Sénégal mu def investissement mm. du jël xaalisam mayee ko mais mën na jël ay doomi mbokkam mu teg ay investissement am ci ay seen loxo mm. mu employé leen ñu liggéeyal ko. waaye li ko téye ko bàyyi ba pare li ko téye bàyyi ko. mu jox naa ko li koy bàyyi li koy dimbale. muy xobi laurier xobi laurier lay jël ak xobi ñam bi mu weer ko man mu wow mhm. mu su mu koy suuroo. Mhm. wa ilaa am naa cuuraay boo xam ne man maa koy jaayal sama bopp. Mhm. boobu baax na pour côté yooyu li nga xam ne dafay gàllankoor doomu aadama mu ko jël ngeen baal ma ci publicité bi mais. solution la solution laa koy jox. solution la wa ilaa mu jël ayatu kursi mu ko sikar soixante-dix fois. su ko defee yàlla dina ko dimbali ci côté boobu mu mën koo dimbale. baax na kon kon kon ba tey di di wax ne mën ngeen poser seen question ci commentaire bi question bu ngeen poser rek moom dina ko tontu incha allah rabbi yaa ngi tolloon si ki nga xam ne mi ngi jël xaalisam yóbbante ko fii propre frère am wala propre mbokkam bu ne ko koo defal ci lenn. donc loolu noonu. Mhm. dafa am ñoo xam ne tey loolu gaar na leen. Mhm. nga xam ne tey dañoo liggéey seen alal ba nga war a def wala war a am seen retour. Mhm. ñëw vacances pour ñëw xool si li nga xam ne moom lañ doon reyante pour ñëw bég bëggee si loolu pour gis ne ñoom kat abandonné woon nañ seen réew def nañ sacrifice génn nañ dem bitim réew. Mhm. pour liggéey pour seen propre euh, avenir. waaye ñu gis ne gannaaw gi. Mhm. yàlla dogal na ci ñoom am ku ñëw lekk seen alal. Mhm. am naa ci benn xarit boo xam ne. loolu daf ko mës a dal. propre papaam moo lekk alalam. bi mu lekkee alalam mu gaaw anecdote mooy nettali la baal ma ci kii parce que jotaay bi laaj na ko pour ñu mën a xam. bi bi mu lekkee la mu mu mu mu am stressé wu. Hmm. ba affaire bi di ko di ko piqué crise hmm. ba mu mel ni ku dof koo xam ne dafa am ay rab. Hmm. ma jugee euh, euh, Dakar dem dëkk ba seeti ko bi ma demee yaayam na ma moom ñëw na dëppi ay de semaine mu ngi ci mais mu ngi ci biir néeg bi nanguwul génn. ma ñëw fekk ko fa laaj ko ma ne ko ma yow qu'est-ce qu'il lu xew mu expliqué ma ma ne ko yow dafa mel ni daw da ngaa tiit daw da ngaa gëmadi yàlla ma ne ko yow sa papa lekk te yonent sa ci moom ne ko sama papa dafay jël sama alal di ko lekk ci ci lu sama ndigal yonent saa sallam def na ko anta wa maaluka li abiik yow ak sa alal sa baay moo leen moom mu ne ko yow sa alal ak si yow sa ak sa alal yépp sa papa moo leen moom donc comme sa papa lekk na sa alal donte d'accord ci mais tu es trop encore jeune li nga réalisé nii du dara ci sa avenir ak li la dese pour nga pour nga pour nga pour nga kii da ngay toogee ne ndax mu mën a jàkkaarloo yow wala nga xëcc chaise bi xëccal chaise bi teg ko nii na ma mën a jàkkaarloo sinon damay tourner sama dox bi parce que yow lay waxal <coughs> ngeen baal ma euh, yi mbokk yi parce que foofu baax na foofu baax eh ndax ma mën yow. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ma ne yow yow sa àddina li ci des dafa bari. Mm-hmm. li nga dese pour nga mën a réaliser waat ci kanam li nga réaliser woon nga kun nga réaliser waat ko. bari na da ngay léegi. sabab mën ko dimbali mais ngay sàkk ci sa alal di ko jox bañ koo bañ koo bañ koo abandonné. tamit nga bañ a nekk ennemi sa papa. Mm-hmm. parce que loolu dafa nekk lu ñaaw. Mm-hmm. yow sa alal papa sa papa lekk sa alal sa papa lekk ko tax nga dof. Mm-hmm. ma ne ko yaa ngi nar a ñaari yoon perte nga sa alal. nga nar a perte sa avenir ndax actuellement nii ñu ñu maa ngi ñëw fekk ñu lay takkal ay morceau. takkal ay téere takkal la lu nekk. parce que ñu ne yóbbu nañ la ci sëriñ yëpp parce que da nga am ay rab ay rab a jàpp wala dañ la liggéey. c'est faux dañ lay nax. alal ji nga jël def sa xol bi aj sa bakkan bi loolu moo la stressé moo la jàpp moo la perturbé. man nag maa ngi dem aw ma gis nga boo dofee seen kër gi dootuma fi ñëwati parce que man mënumaa séq ak dof sama xarit nga nag parce que en nit soo dee nit moom mën nañu continuer séq dof am lu mu yelloo mooy tëj ci la suñu ko defee man mënuma ñëw ñu yeew ma parce que sama xarit nga ma sama ci néeg bi nit laa mën a jëflanteel su fekkee bëgg nga ñu continuer sa waaw boo bëggulee tamit continuer lekk dof man ma continuer sama laaj man mënoo maa dund sama dund ma jóg ne ko kon kon baax na maa ngi dem mu téye sama loxo xëcc ma ne ma sa waxtaan bi delloo si waat na ma dimbale ma bul dem toogal nga dimbale ma nga wax ma nan laay def mm-hmm. ma ne ko daggal bi nga delluwaat Europe mm-hmm. nga ñibbi nga dem liggéey sa liggéey te nga fàtte lii passé na mënatoo wax ba mu ñëwaat mm-hmm. donc loolu dama koy conseiller jeunes africains yi nga xam ne dañoo nekk en l'extérieur seen ay propres parents maanaam tas seen yaakaar bu ñu découragé nañu re nañu recommencé waat mais ñu changer système bi ñuy def te fexee organiser pour mën a épargner seen avenir épargner seen am-am pour mën a réaliser seen kii te maa ngi conseiller bépp jeune africain wala benn bépp africain boo xam ne yaa ngi nekk Europe maa ngi lay wax message boo xam ne message bu am solo la mooy Afrique moo gaa moo téye monopole bi léegi faire retour très tôt bu leen xaar ba muy tardé ngeen di wàññeeku si tubaab yaa ngi daw di ñëw tous les occidentaux ñu ngi daw di ñëw Afrique kon gaaw leen ngeen ñëw ngeen investi def seen ay investissement koo xam ne am nga 500000 francs rek à partir de 500000 ku ko am te nekk extérieur mën nga com def sa commencé def sa ay investissement pour mën a réaliser sa avenir nit bu demee Europe dem émigré ji dafa war a dem pour outil départ mais warul dem pour dëkki képp ku fa mën a nekk rek loo fa ti am ci àll lu mu rëy rëy ak lu mu bëri bëri fàttalikul sa démb fàttalikul sa ginnaaw pour mën a ñëwaat Afrique pour mën a defaat sa ay investissement moo xam que ça soit Sénégal nga nekk wala nga nekk. ci nga xam ne mooy yeneen suur ci siw région bi fu mu ci mënti doon nañ fexe ñu jël seen ay alal seen euh, seen am-am ñu investir ko. investir ko fii nii ci nga xam ne moom mooy seen ay seen ay réew. parce que man dama seetlu dama gis ay nit ñoo xam ne mën naa leen citer ay ku ñu nekk ay exemplaires yoo xam ne yàlla ubbi na leen ci àddina àddina uyu na leen mais bi leen àddina uyoo dañ koo wan ginnaaw dañ ko wan ginnaaw ñëwaat seen réew samp fa def fa seen bu dee côté diine la. soo xoolee ku mel ni exemple bu mel ni Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass tubaab yi nax yi ñuy nax di ñuy wax naan ñoom comme fan yi may déglu nii mu ne mu ne éco bi bi ñu war a def suñu war a changer CFA pour def ñu ne France moo ñuy garantir ñun dañoo xamut sax li xew Sénégal mooy gar moom moom moom ci boppam moo war a mën a garantir France loolu sénégalais dañ ko war a gëm français yi waruñu mën a garantir. te lépp loo boo xoolee éducation ci système éducation bi boo xoolee système éducation bi boo ko xoolee euh, ñi ñi Sénégal sénégalais yi nga xam ne ñoo ñoo nekk Sénégal pur et dur ñi ñu construire yi nga xam ne ñoo leen tabax ak sénégalais yi nga xam ne occidentaux yi ñoo leen tabax soo leen xoolee ñoom ñaar dafay mel ni yàlla ak yàlla man dama ci cité benn exemple ci Cheikh Cheikh Ibrahim Niass parce que il est international Mhm. c'est l'un des euh, mooy sëriñ boo xam ne mhm. moo ëpp taalibe ci àddina bi mhm. mboolem lu ñuy wax sëriñ ci kaw suuf sur terre Baye Niass moo ci ëpp taalibe méthode bi mu doxal doxalee ba mën a euh, euh, convaincre àddina bi ñu topp ko méthode boobu noonu kan moo ko formé un sénégalais boo xam ne mbokki sëriñam bi dañ ko doon wooyee ne ko moom kaw kaw la muy El Hadj Ibrahima Niass baayam maam El Hadj Abdoulaye maam El Hadj maam El Hadj Abdoulaye Niass bi nga xam ne moom moo tabax Baye Niass mm-hmm. ah maam El Hadj Abdoulaye boobu mm-hmm. bi muy bi muy tabax Baye Niass tubaab yi dañoo ñëw ne ko Baye Niass ak ay frère am mm-hmm. dañuy ñëw ñu dugg ci école française bi école française bi mu ne non man sama doom duñ jàng français bàyyi leen ma ak samay doom man ma tabaxal leen samay bopp man diina ji ma nekk moom la ñuy topp li ma jàng la ñuy jàng mu jël ay doomam Baye Niass ci boppam moo wax ne. première leçon bi mu jël muy dars bi mu njëkk a jàng ci baayam bi mu njëkk a jàng jàng dans sa vie euh, dans moom baayam moo ko ko jàngal. kon kooku mën naan wax ne mën nañu wax ne moom mi nga xam ne baayam moo ko jàngal. te muy doomi Sénégal. waaw ak li mu réussir ci àddina bi yëpp comme Sénégal fépp fu mu nekk ci investissement ci wàllum liggéey ci wàllum koom-koom. gëm sa bopp bi laay wax gëm sa bopp bi. moom pour wane la ne. waaw waruñu copier ci tubaab yi ci dara. bu baax am nañ ay ressources humaines yoo xam ne mën nañoo accompagner. Mhm. am nañ ay ay ay ay exemplaires yoo xam ne mën nañ cee tirer ay leçons pour dem fi ñu bëgg dem. Mhm. loolu laay wax. waaw pour wane na maa El Hadj Abdoulaye mu mhm. kaw kaw lañ ko jàppee woon. benn deuxièmement bi tubaab yi dañoo ñëwoon wala participer ci éducation ci éducation ay doomam mhm. mu rejeté leen mhm. gars yi mu abandonné Sénégal gàddaay dem Gambie mhm. ba pare en retour mu wëlbatikuwaat dellusiwaat xëcc bu gudd la xëcc bu gudd la mais li ma bëgg a tiire foofu comme exemplaire mooy Baye Niass ci boppam maam El Hadj Abdoulaye Niass bi mu koy tabax moom Baye Niass mu ne première dars mooy première leçon bi ma jàng ci sama dund sama baay moo ma ko jox der dernière leçon bi ma jàng sama baay moo ko jox donc Baye Niass mu ngi judd 1900 bàyyam mu ngi génn àddina 1922. Mhm. kon entre 1900 boo ci génnee âge puberté mooy âge xale comme moi euh, euh, euh, xale bi nga xam ne day juddu foo naam ba ba muy dal jàng. waaw soo ko génnee ci ay atam. Mhm. soo ci génnee 5 ans rek mën nga ci génnee 5 ans parce que. waaw bàyyi na teel a dugg di jàng boo ci génnee 5 ans da ngay gis na kon. waaw 18 ans la dund ak bàyyam 1922. Mhm. Hmm? wala 17 ans. la dund ak bàyyam mu ne bàyyam moo ko njëkk jàngal moo ko mujjee jàngal léegi xoolal comment bàyyi bàyyam boobu nga xam ne moo ko jàngal. moo ko yar moo ko moo ko jox culture bi mu am ba mu mën a jaxasoo ak addina bi hmm? mën a jaxasoo ak àddina bi mën a dem ci addina bi chef d'état yëpp mu leen di mu leen di jox ay ay plan di leen di jox ay conseil chef d'état yëpp mu mu mu leen di wan naka la ñuy doxalee seen réew mhm. Arabie Saoudite bi nga xam ne fa la l'islam bi jugee dem ba nga xam ne moom bokk na ci ñi nga xam ne rabitatu alamul islamique bi nga xam ne ñoom ñoo ko tëraloon mhm. Baye Niass moo nekkoon deuxième vice président bi mhm. nekk secrétaire ci ay mboolem mboolem euh, euh, kii yu bëri bàyyi na nekk ko fa donc donc nekk doomu Sénégal ci côté ci côté lislaam nga xam ne kooku côté boobu bu ñu ko jëlee ci côté diine mën nañ jël bàyyi na exemple boo xam ne il est international ci ci tous les plans mm-hmm. ci wàllu culture moom moo fi njëkk a bay ceeb ba àddina bi yëpp di ko riir mm-hmm. bay fi coton ba àddina bi di ko di ko wàllu wàllu wàllu culturel mm-hmm. wàllu euh, euh, euh, mbay mi mu jox ci exemple ci wàllu éducation ci taalibe yi mu yar jàngal leen ku ma mel ni oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nga xam ne Baye moo ko formé bi mu jógee pour dem jàngi gars yi dañoo téye passeport am mm. maa ngi seetaan ci benn discours am muy wax ne benn bis mës nañu am benn jotaay boo xam ne boo leen alamu islam ñoo dajee mm. ñu a def waxtaan ñu ne leen jox islam Ibrahima Mahmoud Diop mu def discours mu leen ci seen tur ñoom ñëpp bi mu jëlee discours mu njëkk a wax mooy xale bi nga xam ne moom lañ aaye woon jël nangu passeport am ne du jàngi xale boobu toog dëkkam mm. yaa ngi dégg def faraatu ay baati araabam di farata ay xam-xamam tey moom lañ jox ci aalamu islamique ak mboolem addina bi moom lañ jox nekkoon na ndox ci seen tur kooku Baye Niass moo ko formé ci ronam donc nga gis ne Baye Baye Niass moo jox moo formé Baye Niass Baye Niass wan ne loolu du woon lu ñu maanaam lu woon mira du nekkuloon euh, euh, hasard mm-hmm. mais lu ñu formation la mm-hmm. bàyyi na su confirmé waat ne loolu mën na nekk mën na am mën na am continuité. ci doomi réew mi yëpp ci doomi réew mi yëpp. mu jëlaat Ibrahima Mahmoud Diop mi nga xam ne génnul demul fenn ñu mu téyee ko boppam. yaraat ko defaat li bàyyam defoon ci moom mu defaat ci Ibrahima Mahmoud Diop ba doomu Sénégal doomu Serigne si nekk Sénégal yëpp mujj nañ ñëpp d' ci ne Baye Niass ci Alaaji Ibrahima Oustaz euh, Ibrahima Mahmoud Diop ñoom dañ koo ñëwee ci dégg ni mu déggee arab ak xam-xam ni koy génnee ak pédagogie bi muy jàngalee mu nga xam ne tey mboolem chef d'état euh, africain wala européen yi mboolem ci àddina bi ñëpp reconnaître nañ Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mhm. euh, euh, ci xam-xamam boobu noonu ci côté l'islam soo ñëwee ci côté wàllu wàllu santé soo demee danga gis kenn quelqu'un koo xam ne mu ngi ñu ngi koy wax Daouda professeur Daouda Ndiaye mhm. nga xam ne Bill Gates mi nga xam ne tey moom moo ñu wax ne moo ëpp alal ci àddina bi mhm. Hmm? bi mu ko gisee dafa tiit ba mu ko gisee dafa jommi ci moom ba nga xam ne daf koy jël sa boole ko ci stafam boole ko ci stafam kooku bokk na ci tey euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo war wàllu santé ci àddina bi mm-hmm. hmm? doomu sénégal yi laa lay laa lay wax du nga xam ne ñoo yor wàllu santé ci àddina bi mm-hmm. nga xam ne tey boo demee OMS organisation mondiale de la santé mm-hmm. euh, dix personnes yi nga xam ñoom ngénk santé àddina bi dafa siégé dafa siégé daa professeur Daouda jaay ca la bokk te ca njiit ya la bokk li ñuy xam ne mooy wàllu paludisme nga xam ne àddina bi li fi dee ci wàllu sibiru kenn xamul ni ñu ni ñu toll Euh, test bi gën a gaaw ci àddina bi gën a rapide pour génne paludisme moo ko trouvé mu nekk quelqu'un koo xam ne ci àddina bi moom lañ jox ne raaya bi gën a ci gën a xam si siburu ci àddina bi moom la doomu Sénégal la soo demee ci lu mel lu mel ni wàllu wàllu wëy wàllu santé yi wàllu wëy <coughs> ah Akon Akon gis nga ko <coughs> gis nga fondation bi mu taxawal si keroog maa ngi seetaan coon ñaa maa ngi koy xool di ko suivre ma gis ko moom mu nekk benn jeune africain sénégalais boo xam ne bi génn Sénégal di dem bitim réew nee na vingt dollars la yore vingt dollars la am la wàccaale Amérique mm. bu vingt dollars mm. te dafa gént Baye Niass ne ko demal ci sama benn ci do ci benn doomu sëñ Mamoune Niass mm. xaw ma doomu sëñ Maam xaw ma benn sëtu Baye Niass ne ko demal mu ñaanal la nga dem ambassade ñu may la visa nga dem Amérique mu dem demander visa dem doomu Baye ñaanal ko mu dem demander visa ñu may ko visa mu dem Amérique bi muy wàcc foofu nee na vingt dollars la yore yaa ngi dégg bi muy la yore mu yore noonu Euh, mujj na mujj na dem ba nga xam ne euh, président Obama bi muy def campagne am. campagne évidemment campagne Obama bi. Mhm. moom après bi ko Obama euh, gagné. Mhm. moom la jël def ko mu nekk jeune jeune parlement parlement jeune jeune social social si dëkk foofu. Mhm. moom moo nekkoon seen njiit Amérique ba Amérique daj. donc nga gis ay doomi Sénégal yi woo xam après man li ma gën a marqué ci moom ba tax ma jël exemple mooy. mu ne moom dem na ba gis ne yàlla may na ko àddina. yàlla may na ko alal yàlla may na ko luxe ndax dem ba bokk ci ci état amerique mhm. nga dem ba bokk ci Maison balance dugg fa di fa liggéey mhm. ñu reconnaître la af mbooleem Amérique américain yi seen jeunesse bi nga jiite leen mhm. loolu ku ko yàlla defal su la yàlla defalul tawféex pour nga amaat retour di xalaataat Afrique ak mbay ma da loolu ko amul tawféex doo ko ma gis ko mu ne moom dafay wëlbatikuwaat day wàññeeku ñibbi si Afrique pour lan pour ñu dimbale Afrique ndax moom ma ay kon yàlla ubbi na leen ci àddina ñu dem ba gis ne Afrique li fi nekk ci ay nit bu jee téeméeri nit la juróom fukki yëpp ñu ngi dund ci lëndëm ñu ne kon ñoom nañ créer fondation boo xam ne ñëw pour éclairer éclaircir Afrique donc ñooñu mën nañoo jël comme ay exemple ci ñoom damay wax africains yi léeg-léeg wax sénégalais yi nañ fàtte tubaab yi dañ ñuy nax gis nga même suñu chef d'état yi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey ci euh, nguur gi dañuy dañuy bay seen wàll ci réew mi même ñoom moomuñu réew mi moom ñoom nekk ñoo war a développer réew mi réew mi ñun ñëpp ñoo war a ànd développer ko muy muy président yi muy ministre yi muy jaaykat bi muy mbay baykat bi muy immigré bi muy ku mënti doon ñun ñëpp war nañu mën a ànd pour mën a développer li nga xam ne moom mooy Sénégal waaye war nañu mën a ànd développer li nga xam ne moom mooy Afrique africains yi dañoo war a gis amaat beneen gisim bu bees xam ne Afrique actuellement moo yore monopole bi pétrole fii lañ ko yaakaar or fii lañ ko yaakaar jamaa fii lañ ko yaakaar lépp loo xam ne lu loo xam ne ressources humaines la tey adduna bi yëpp am nañ ci crise ba mu des Afrique kon nag les temps que africains yi yeewu immigré yi nañ gaaw ñu préparé ñu dajale seen am-am bi ñu ñibbisiwaat Sénégal ñoolu mhm. laay conseillé yi nga xam ne ñoo immigré yi immigration bi nit ñi ñu ngi góor góorlu waaye li li leen di gën a rey man de wax naa ko Sénégal boo xoolee euh, PIB mhm. li fi immigré yi di dugal mhm. ci ñaata milliards la ñuy def ñaata centaine de milliards la ñuy def par an pour dugg dugal ci réew mi. mais lan nga mën a gis lu mën a lu ñu mën a symboliser ñu ne lii liggéey immigré liggéey immigré la. Hmm. immigré bu ci gën a réussir bu réussir ba réussir mooy immigré boo xam ne am na kër am na oto hmm. mais loolu si ay kati caaf nekk ci àll bi ci dëkk bi fii ñu ngi koy am. Hmm. loolu jarul gàddaay sa réew. loolu bu la yàlla dénkee alal da war a am gestion bu baax da nga war a am organisation bu baax danga war a xam ni ku tayal mais ni kuy tayal ni ku ni kuy fo kenn du ko dimbale ay ngénte ay takk ay céet mais yooyu ay fo la warul waru waroo ci focaliser wu ba yàq sa avenir ñi ko doon def ñëpp rëccu nañ ko ku ko ciy def na nga xam ne ci rëccu ko rek ngay mujj ak jigéen lu mu rafet rafet rafet rafet rafet na nga yem ak moom ci cadre defal ko teraanga yor ko jox ko bu lekk jox ko bu naan nga utal ko liggéey mu liggéey su fekkee ne dafa bëgg liggéey mais bu leen jël seen alal di ko investir ci ay takk du ko jël seen alal di ko investir ci ay ngénte loolu c'est des c'est des choses yoo xam ne ki nekk fi sax waru ko waxuma laa ki tukki takk yëg ngénte yi moodu moodu yi nga xam ne ñu ngi nekk à l'étranger di ni seen xaalis fii di ko dugg ci loolu sëriñ bi nee ngeen bàyyi loolu parce que xaalis la dinañ ci dellu si waaye ñu ñëw si ñaari question ak ñetti question rek mhm. kii moom nee na mhm. dafa am benn jarbaat mhm. jarbaatam boo xam ne dafa am jàngoro ju ko dal jàngoro ji bu ko daanee daana ne ko sax nee na mënut a toog mënut a taxaw mhm. mun a def dara nee na yaram bi daal day mel lu simmeeku lu bàyyi nee na soriwul sax ndax mi ngi boori sa boori cabine ba boori pharmacie golf neen mhm. kooku moom koy baaxee bu ko daal bu ko daal yaram bi day mel lu simmeeku dootu mën taxaw mënut a dara yaram bi day bàyyi totalement yaram mhm. dafa bàyyi totalement nee na présentement loolu moo daal jarba tamit waaw loolu waaye am na na lu message am léegi damay poser question yokk la ci message am nee na ñun xamuñu lan la waaye jour bi koy ngénte jour bi ñu koy ngénte hmm. benn ngelaw dugg na fa jaxasi foofu yëpp hmm. nee na ngelaw moo fa dugg jaxas jaxasi foofu yëpp rajo ko chaise yëpp loolu laa doon bëgg a wax noonu ma ne la loolu rab moo koy def hmm. mais xaw na nuroog eh, épilepsie mais ba tey bokkul ak épilepsie épilepsie moom bu la dalee ba bàyyi la la lay def noonu mais bu moment de crise bi moom da ngay yëngatu bu baax donc xaw na am tuuti différence ak épilepsie mais loolu rab en général moo koy def loolu fekkee ne nag euh, mën nañ ko fajal rab Mm-hmm. nañ ko fajal rab mm-hmm. su wala ñu utal ko comme li ma waxoon noonu nañ koy utal ay ñaan ci wàllu rab bu baax mm-hmm. euh, ñu utal ko xobu laurier yooyu ma waxoon suur ko ko wala ñu jël xasum xay ak pos ñu baxal ko lenn ñu baxal ko jox mu naan li ci des ñu def ko wowal ko ba mu wow ñu suur ko ci xasum xay ak xasum xay ak xasum pos waaw waaw nañ ko ko defal waaw ko ñëw xasum xay ak xasum pos mm. waaw kon ngeen baal ma sëriñ bi yaa ngi dégg yow mi nga xam ne sa jarbaaj loolu moo ko dal nee xasum xëy ak xasum pos ngeen defal ko ko suur ko ko. ngeen suur nañ ko ci waaw sàkk ci def ko defal ko ci ñu waaw ngeen suur ko sàkk si ngeen defal ko ko ci également mu naan. Hmm, nga xam ne li ci biir ak li ci biti yëpp lay lay lay dindi. waaw waaw kon defal ko loolu su ngeen paree ngeen def suivi ba comme xam nga kabinam nga jàpp waxtu waxtu woo libre kii moom nee na ku bëgg liggéey ku bëgg am liggéey rapidement nan ngay def moom moom leen dafa dafay a liggéey. kooku na jël juróom-ñaari suufu sën mu sangoo. juróom-ñaari suufi sën. waaw mooy suufu suufu fi ñu tuuree mbalit. waaw juróom-ñaari suufi sën. na dem si sën yoo xam ne juróom-ñaari suufi sën la. lay jël ngay jël. xoj ko sangoo ko. mu nga xoj nga sango dama ci sën bu nekk fépp fu ñuy tuur mbalit waaw nga jël fa juróom-ñaari suuf. nga xooj ko nga sangook yow mi bëgg a liggéey wala mu bind bindul fatiha juróom-ñaari yoon mu sa mu balaa mu koy sang mu éene ci pour yàlla may ko wala nga bind fatiha waaw kon dégg nga ko juróom-ñaari yoon bala nga ko sangoo nga éene ci yàlla may la place kii moom nee na kii moom nee na ku bëgg jëkkëru jinne lan lay def mën ko jëkkëru jinne nga bëgg mën a waaw waaye la jinne juy may xaalis nee moom loolu bëgg jëkkëru jinne la bëgg la ko amati xam-xam waaw dégg nga nee na moom amu ci xam-xam. amu ci xam-xam waaw jëkkëru junne waaw amu ci xam-xam moom jabaru junne yam amu ci xam-xam. waaw ci xam-xam waaw kon kon soxna si ñoo ñoo teewloo réponse boobu sëriñ bi yaa ngi tolloon ci yaa ngi tolloon ci ñu nekk bitim réew. Mhm. nga leen daan arrêté di bàyyi seen di jël seen alal di yóbbante fii. ana waxuma la buñ dese al yóbbante ko de ah nañ organiser seen yóbbante maanaam ngénte takk dëj yooyu waaw nga xam ne ay caaxaan la waaw nañ ko bàyyi laa wax parce que hmm. loolu moo leen très réussir seen àddina suñ ñëwee ba pare nag ba nga xam ne dajale li ñuy dajalee ba ñëw buñ ñëwee sur place nga xam ne ñoom ñooy defalaat seen bopp seen ay investissement toog hmm. parce que immigration yi boo gisee muy saturé Europe hmm. mooy dañ dul dem dajale alal ñibbisi suñ ko doon def mu nekk mu nekk genre rotation duñ mës a saturé du mës a saturé mm-hmm. mais tey lii boo demee toog sama morom dem toog sa jarbaat juddu màgg fekk la fa ñëwaat toog mm-hmm. rakam juddu màgg fekk ko ñu waa toog bu yàggee foofa day fees Afrique dootu amati dara développement bu amati Afrique mm-hmm. gis nga crise bi am Afrique xam nga lu ko waral mooy gàddaay bi doomi africain yi gàddaay Afrique dem Europe moo waral crise bi parce que Chine bëri bëri dama koy wax keroog suñ benn benn laaj bi ñu doon ma ne gars yi ñuy defar ay planification familiale di ñu nax si euh, alxuraan jox ñu benn programme bu baax ñu ñu koy weddi yàlla jox ñu ñetti jabar ba ñeenti jabar yàlla jox ñu ko hmm. yaa ngi dégg yàlla wax na ne dagalal la ci ñu ñu takk ba ñeenti jabar yaa ngi dégg ku la ke dagalal takkalal takkalal la ñeenti jabar xam na ne jabar ju nekk bu amee doom doom bu nekk jabar bu nekk bu amee doom mais dafay nekk ñeenti doom hmm. tubaab bi ñëw takkaloo la benn jabar kon kon kon jabar bu nekk bu amee benn doom benn doom lay nekk hmm. kon foofu rek jàngal la ñu ne ñun dañoo war a bari yaa ngi dégg beneen bi ci topp yàlla waxaat ne dalalal suñu xer ne man maan yàlla maas te leen bu leen rey seen ay doom mhm. ngir ngir lan ngir ragal ñàkk mhm. ah ñun ñoo leen sàkk ñu leen gàddul wërsëg bu ñuy bu ñuy wéyee mhm. léegi yooyu noonu yàlla jox ñu ko defal ñu garanti ah, ci ki gëm yàlla laa ko de léegi nga wóobati ko yow ñu lay planif ñu ne daan dañ la wax ne ah, dañ lay defal plan planification familiale parce que occidentaux yi dem nañ ba xam ne africains yi ni ñuy juree dafa bari mhm. te bu ñu bëree rek da ngay gis ne mhm. euh, dañuy dañuy dañuy am développement léegi nag ñàkk gi ñuy ragal gi ñi ragal am ay doom laa wax na nañ ko bàyyi mhm. africains yi nañ walbatikuwaat ñëwaat Afrique nañ wa jógee Europe ñu ñëw Afrique nañ jël seen ay alal yi ñu delloo si ko Afrique nañ ñibbi si Afrique su ko defee loolu dina tax Afrique développé dina tax bu dee sénégalais la Sénégal dina tax Sénégal développé gis nga chinois yi buñ ñemee ci réew essence duñ ko jënd sa réew lépp lu ñuy lekk seen réew lay jógee ñëw fekk si leen fañ fañ dëkk ñu ko fay lekkee même bu ñuy perte seen alalu réew la ñuy jënd même bu ñuy gañee seen alalu réew la ñuy jënd sénégalais ngay gis ngay nekk sénégalais di jaay kee nekk chinois di jaay ñu bàyyi fa sénégalais bi dem ca chinois bi di jënd maire bi jaay cere ci wet jaay cere ci ci wet ñu wàcc ko fa dem ca kay jaay couscous euh, marocain mhm. ñu jënd ko fa mhm. donc yooyu laay wax ne loolu tant que dañul ci suñ bopp yi ñun africains yi mhm. développement danañu yi danañu dana yéex ñun parce que dërëm bi ngay jël di ko jox étranger bu ko xeeb moom boo ko méngale ak dërëm bi nga nekk bitim réew jëlee ko bitim réew indi ko Sénégal la mu fay jëriñ hmm. noonu nga war a xamee ne bu fi génnee tamit noonu lay manqué le noonu lay manqué le réew mi hmm. donc kon sénégalais yi nga xam ne ñu nekk à l'extérieur hmm. nañ ñibbisi su ko defee ñiy bëgg a dem buñ demee fekk am na am na rotation ñii ñëw ñii di dem ñii di ñëw ñii di dem bu boobaa expérience danañ ko fa jëlee bu ñëwee implanté wu ci réew danañ mën a tax ñu mën a am ay def mën a am ay création d'emploi yi ñi nga xam ne état baa ngi ko bëgg mënu ko am parce que bi tamit mënu def lépp création d'emploi ñëpp ko war a créer man mii man su ma waxoon tey doomu daara la kaw kaw la rek yem ko mais du ma créer bureau bio naturel bio naturel ñaata nit ñoo ci ñoo ci ñoo ci yëngatu ñu ci ñoo liggéey di di ci am di daan seen doole di yóbbu seen eh, yaay ñuy fay location ñi ci lekk ñu ci di daan mm-hmm. mais su ma ko yemale woon sama bopp donc ne man yàlla defal na man mën naa am naa xam naa danaa yem si sama bopp mais kon kon ñooñu duñu am luñu lekk mhm. kon nag kenn koo xam ne mën nga créer emploi benn même bu fekkee ne yàlla may na la wërsëg nga mën a def benn boolu cere mhm. ci bopp koñ bi am benn jigéen bu ne ci koñ bu deful dara nga dénk ko mu lay jaayal weer dee nga fay ko mhm. bu ko xeeb def ko mhm. su fekkee mën nga créer benn taabal banaana am benn xale bu ne ci koñ bi deful dara nga créer ko taabal banaana jaay jox ko mhm. muy jaay nga di ko muy bu dee nga fay ko jël ci li nga ci am mu jël lam am bu ko xeet def ko donc man foofu laay o africains yi foofu laay oo sénégalais yi ñi nekk sénégalais yi nekk euh, euh, euh, séréer ñu bàyyi ñu bàyyi di yónnee seen xaalis yi si réew mi ay yónnee ay tabaxal ma ñaata nit lañ toroxal ci seen nijaay boo xam ne danga ko jox taxaali mu takkee ko jabar ñaata nit lañ jox ñoo xam ne da ko jox sa rakk papa mu lekk ko ñaata nit lañ ci toroxal ci yooyu mm-hmm. loolu noonu il est temps que léegi ñu yeewu ci mm-hmm. ak ay nit yi nga xam ne dañuy ñëw defar ay société fictive yoo xam ne amul existé wul ñu jël seen dagg biir jël seen ay cartable yëpp dem dem dem bitim réew di leen présenté ay projet yoo xam ne teguwul ci fenn ay ay am naa terrain mu ngi ñaxiraat wala am naa terrain mu ngi mbàbbi loolu am naa terrain mu ngi teg mu ngi mu mu mu ngi jam ñaañoo nga jël sa alal verse fa nga ñëw Sénégal doo gis dara loolu nañ ko arrêté damay wax ne investissement dafa am ay perte ak ay gagnant dafa am ay perte yoo xam ne mënul ci investissement boo a sedd ci yow mooy perte temps mais perte a métti mooy perte moom nga koy uti ji waat ñaari temps yooyu ngay perte donc kon perte benn temps bi moom moo gën a moo gën a sedd temps bi ngay perte mooy ban temps mooy dajal boo dajale sa alal nga tey nga téye ko au lieu nga yón jënd ci loo xam ne njëndum gumba lay nekk wala nga yónnee ko koo xam ne mën naa nekk mun wuur mën ngaa gañe mën ngaa perte loolu bu boobaa mën nga indi sa alal nga teg ko soo nga téyee ko ba ñëwal sa bopp ci réew mi su dee kër ngay jënd nga dem ci notaire mu jaay la wala mu jëndal la su fekkee ne ne investissement booy def la nga teg ko ci ay loxo yu leer loxo yu wóor moo xam ne yow yaay ñëw sur place nga ñu def parce que àddina bi moo toll foofu mm-hmm. foo xam ne léegi confiance dafa xaw a mel ni lu manqué mm-hmm. ci entre xarit ak xarit mm-hmm. jëkkër ak jabar doom ak bu waajuram mbokk ak mbokkum nijaay ak jarbaatam euh, euh, baay ak doomam yooyu yëpp daf ci am ay yoo xam ne yu ci nekk rek système bi moom moo dem ba nga xam ne moom moo àgg foofu pour yow nga mën a mucc il faut nga mën a jël say ay précaution d'accord sëriñ bi lan ngay wax ki nga xam ne Sénégal bi nga xam ne mi ngi 3 millions wala même 5 millions juróomi millions. Mm-hmm. sëriñ bi nga ne da nga koy teg da koy def ci yoonu géej gi pour dem Espagne wala même sax même fekkee yoonu avion bi la. Mm-hmm. lan nga wax xam ne yor na 5 millions brique fii mm-hmm. Sénégal toog brique. compte 5 millions ci poche am. na man maa ngi dem Europe pour liggéey. kooku la koy wax. kooku euh, amul solution. Mm. dafa jaxasoo dafa jaaxle. mais xamul na 5 millions avec 5 millions mën nga nekk un milliardaire d'ici 5 ans. wala wala wala mu ëpp. fii ci réew mi ci réew mi fii mën nga nekk ci cinq million cinq ans. Mhm. loolu yomb la. Mhm. man damay wax ne man defa ay étudiants dañuy ñëw ci man dañuy ñëw ci man danaa leen ñaanal <coughs> pour ñu am liggéey des fois ma laaj la mhm. euh, ñaata yow ban niveau nga toll ci ci jàng ngeen daal ma. nga dégg ñu ne ma man man kat am naa bac plus cinq. maanaam man un sénégalais wala un étudiant un étudiant bu am bac plus cinq. man duma ko ñaanal mu am liggéey. dama koy yee mu xam ne moom c'est un quelqu'un koo xam ne dañ ko codé. y de des jeunes africains yoo xam ne dañ leen a codé tubaab yi ñoo leen codé xam nga système éducatif bi gaa yi tëral mooy wàllu njàng mi dañ moo ñu moo tere ñu développé suñ ko changé woon université dafa war a am ay quelques uns yu ko war a dem c' est pas tout les étudiants ñoo war a dem université te université en même temps du étudiant yëpp ñoo fa war a xaar ay master master ñi war a def master tamit ñëpp ñoo war a xaar pour am fa maîtrise du ñëpp ñu war a xaar am licence mm-hmm. donc dafa am ñoo xam ne dafa am ko dafa am koo xam ne su amee BFEM mm-hmm. ah bu amee BFEM doy na doy na ci moom nañ ko génnee école mu dem dem commencé bokk ci société bi mm-hmm. mais plan bi ñu gars yi tëralal yow soo ñëwee di nekk xale nekk nit yàlla may la nga nekk quelqu'un ko xam ne yàlla may na la euh, ah mën nga def ay invention xarañteef xarañteef yàlla may la intelligence may la xalaat boo xam ne comme euh, euh, ñi nga ñi nga xam ne tey dañuy def ay mbir yoo xam ne mbir yi yéeme la ci bas âge yow nga ñëw ñu ne la yow foo toll nga ne man kat defam laay def mm-hmm. ah kon ama ko bac dèjà ñu ngi lay wan ne la fi nga toll du dara du dara faaw nga def bac faaw nga defi def bac ñu ne ah kon dama koy essayé dama nga def cité mo maa ngi sama yaa ngi sama première année donc kon addina baa ngi dox mu ngi dem am na loo waroon def ci piir addina boobu nga nekk yow am na lu yàlla def ci yow loo xam ne war nga koo mën a def ci biir àddina bi nga nekk mais actuellement yaa ngi ko bloqué parce que bloqué lañ la par système boo xam ne loolu moo gën a tardeel suñu réew mi léegi yow fan mooy sa direction mooy dans dans dans un bureau bureau benn bureau moom nga visé pour dugg foofu léegi danañ la jaarale niveau bac BFEM niveau bac ni bac plus 5 euh, nga def maîtrise ah nga def yooyu yëpp fan nga mujj nga téye sa diplôme yëpp fan nga mujj ñu ubbi la benn bureau. dugal la fa tëj la yaa ngi dégg léegi bu ñu lay dugal foofu ci bureau bi xoolal dañ lay jëlal dañ lay defal stage jël sa fukki junni morom hmm? te it taaj leen léegi ñooñu ñëpp système boobu noonu xoolal ñaata la ci jël xoolal ñaata la ci rejeté léegi loolu nit ñi waruñ ci yeewu waruñu yeewu ci léegi soo demee lu mel ni douane maa bëggoon tey rek nga xaar rek euh, concours douane jot nga xool ñaata milliers de jeunes ñooy déposé ak ñaata la ñuy jël léegi lu mel ni gendarmerie ñu doon ñu lancé woon na léegi dañoo bëgg dañoo soxla ay élément nga xool ñaata milliers jeunes ñoo jàng ba am yenn niveau yi ñu dem di déposé ji man miy def ñaan yi nga xam ne dañuy ñëw ci man dama wax sëriñ bi damay ñaan concours douane lay la la ñuy kii dañuy war a dañuy war a recruter douane dafay la recruter dañuy dañuy dañuy ñaanal donc dañuy jël lu mat ay deux cent mille jeunes wala lu mat cent mille jeunes ñu ne léegi quinze personnes lañ ci soxla léegi ñi ci des ñëpp système bi moo moo leen conservé te loolu tubaab bi ñoo ko tëral programme la bu tubaab bi tëral donc damay wax ne nañ fexe loolu ñu arrêté ko mën na ñu ko arrêté gis nga jàng taxut kenn développé. mbay mi mbay maa ngi fii. xool nañu ci hectare de terrain donc yow man dama ne képp koo xam ne jàng nga ba mën a calculer un plus un égale deux. kon li fiy dex ci Sénégal te exploité wuñ ko. mënuñu ko exploité xamul tax dañuy fexe dañuy def benn plan boo xam ne ki nekk ci àll ba tey mën naa nekk benn nit bu toog ba yàgg mu yeew def fa mbay mais dañuy fexe def plan boo xam ne ñëpp dañ leen di. dafa mel ni genre dafa mel ni Dakar lañ teg acier bi hmm. acier bi nga xam ne mooy kat ci nit ñi ñu ñëw vers Dakar hmm. léegi su ko defee baykat bi bu toogee foofu noonu bu yàggee mën naa yeewu nekk un vrai culture peut-être bul fàtte Amérique seen développement bu réy bi mbay moo leen ko may Europe France ñoom développement bu ñu am mbay moo leen ko may Japon Japon noonu donc buñ bañee buñ bañee ñu développé xam nga lu ñuy def hmm. dañuy tëral ay plan yoo xam ne ñëpp ñu nekk ci bay àll ba dañuy dem ba dañuy nekk ay gàcce maanaam toog àll ba dafay nekk gàcce ci yow pour nga mën fa nekk gàcce la ci ñoom gàcce la ci ñoom parce que barki di man comme li ma wax ni ci coon ñaam yi coon suuf sa hmm. te pourtant fa la jógee woon da koo taw ba mu demee ba Amérique may ko mais dafa xalaat ne ndekk gars yi dafa yeewu xam ne ndekk gars yi dañ leen doon nax hmm. mu wëlbatiku waat vers ca mbay ma hmm. kon ñun nañu xam ne système bi ñu tëralal mooy di la wan ne yow tu es un intellectuel mm-hmm. le mot intellectuel c'est un c'est un kii amut mm-hmm. ba intellectuel yi rek ñoo fay tardé mm-hmm. intellectuel yi ñu nga àddina bi nga gis ni tey ñi nga fiy jëgg ñu leen di tudd ñëpp nekkuñ ay borom xam-xam nekkul ñu jàng mhm. yàlla moo leen may ñu ñëw ak seen jël seen xam-xam bopp waaye jàng baax na itam non wet yu ma jàng jàng baax na jàng ba sa jàng avancé yi baax na am ay diplôme baax na déedéet waxuma kon déggoo man yow fan la da nekk dama ne gis nga ne ñi fi tar lan mën na jàng yi baax na jàng ba say diplôme yi baax mais diplôme yi yor ko amul sens xam la moo am sens sens soo ma waxee jàng baax na jàng ba defar lu nit ñi mën a jëriñoo baax na ma d'accord mais soo ma wax jàng benn ay diplôme ça qu'est-ce que ça veut dire les diplômes diplôme ça signifie jàng jàng pour am. mais diplôme moo amul sens. diplôme ci boppam a bàyyi. bi ko. mais est itam nit ñi xam ne toog na ba am alalam. Mhm. bëggu jàng moom pour xam. pour am diplôme moom nit ku toog ba jàng ndax gis nañ koo xam ne. Mhm. am na fi alal. Mhm. man gis naa benn politicien boo xam ne c'était un premier ministre. ba administration bi mu nekkee wàccee. mais kooku am na xaalisam. Mhm. mais dafa dem jàngiwaat pour retourner si waat. mais dafa am lu ko tax am lu ko tax a jàngi. waaw moo tax ma ne est ce que jàngi itam baaxul ci ki xam ne borom. alal jàng wax ma a kon yow déggu moo tax ma ne déggoo ma. waaw dégg dama ne jàng mhm. man weddiwuma jànge. Mhm. ma weddi jàng parce que yow saa salaam baat bi ko yàlla njëkk a wax ci alquran kon su ma waxee man jàngul bu ma weddee jàng dafay mel dama weddi yàlla ci li mu santaane. weddiwuma loolu dama bëgg ñu faire comprendre intellectuel bi nga xam ne dafa jàng jël ay diplôme am mhm. jàng ba pare am te ay diplôme te amuloo ci benn réalisation boo def mhm. mënoo ci def benn invention mhm. mënoo ci loolu laay ooyee perte loolu laay wax ne bu ko waaj a xaar mais waxuma jàng baaxul jàng mënul bon parce que soo jàngul doo mun def calcul soo jàngul doo mën liir soo jàngul doo bokk ci àddina tey bii parce que àddina tey bi ku jàngul mënu ci bokk ak lu koo munti nekk il faut nga jàng charia bii nga xam ne moom la ñu appliqué si ñun diine soo jàngal mënoo ko appliqué sinon ci ay erreur rek kay def mais il faut que quel euh, euh, euh, système bi laa bëgg ñu xam ne dañoo jël plan bi dañoo jël jàng lëmas ci seen ay secret yi yu ñuy téye secret yooyu nag lay dévoiler pour ñu xam ne bu ñu sukkandiku Amérique soo demee toon ñaa toon ñaa laa di mu ne moom dafa am sens dem ci état boo xam ne mu ngi ko wax devant les tubaab ñëpp toog mu wax leen ko ñu dégg mu ne ilaa bokkul dafa dem ci dëkk boo xam ne dafa uti ak France France yaa ngi toog mu ne euh, dëkk boo xam ne dafa dem dëkk bi mu ne dafa dem ci dëkk boo xam ne mooy Amérique euh, dafa tombé mu nekk dëkk boo xam ne ñoom duñ la laaj diplôme dañ lay laaj loo mën. loo mën c'est vrai nga nga génn nga ne lii laa mën ñu la defal nga def. parce que loolu laay wax. c'est vrai euh, étudiant bi nga xam ne. Mm-hmm. dafa jàng ba am master 2 wala mu am master 3 wala mu am wala mu am euh, euh, euh, bac plus 5 ñooñu laay wax ne leen nañu fexe ñu def ay invention mhm. Cheikh Anta Diop wala sax ay freelance waaw xoolal mhm. Cheikh ante Diop sénégalais la mhm. jàng rek la doon def xoolal li mu réussir ci wàllu kii science kii ci carbone 14 bi carbone 14 bi waaw li mu ci réalisé mhm. li mu ci def mais xam nga loolu lu ko ko may mooy gëstu gëstu mais dafa jàng ba pare jël njàng mi teg ko ne xoolal jël xaal kalam kalam la mhm. ko gën a jàng fuuf mais defuñu lu mu ta def fuuf parce que mhm. ne un étudiant tubaab yi ko jàngal loolu sax découvrir loolu jeex na tubaab yi defoon xam-xam bu ci foofu laay waxee dama bëgg ñu xam ne ki jàng mais un Daouda un professeur Daouda Ndiaye mais am nañu ko supérieur ci jàng. fuuf xam nga lu tax mu réussir ci wàllu wàllu paludisme. Mm-hmm. parce que dafa jël xelam yëng. ay gëstoom gëstoom. ñu mm-hmm. utilisé ko bi muy del dem ci biir Gates pour di ko rencontrer ji. Mm-hmm. mais am na ay intellectuels yu ko ëppoon ay diplôme téeméeri junni yoon. mais bi mu demee propre xam-xamam ak gëm-gëmam doomu Pikine la man dafay dafay wax ne maa ngi gis mu créer benn fondation. boo xam ne xam nga professeur moom dama xarit la. kooku man maa ngi koy yàlla mu réussir ci. Euh, kii bu mu lancé bu mu def mooy soo amee dërëm wala boo amee cent franc na nga ko da nga jël fukki dërëm yi yi nga ci soxla fukki dërëm yi ci des nga dimbale ko sa rakk bi nekk ci sa ron wala sa wala sa dëkkandoo bi nga xam ne mu ngi jàng nga jënd ko benn big doomam romb la nga jënd benn big may mu dem jàngee ji ko participer nga ci développement wala participer nga ci avenir u xale boobu. kooku mu ngi ci humanitaire moom. yaa ngi dégg donc action bi ma créé mooy fondation action bi ma loolu maa ngi koy ci ñaanal yàlla mu may ko ci ndam. parce que mu ngi jël xaalisam. Hmm. alalam. Hmm. di ko def ci population bi. Hmm. gratuitement doomi réew mi mu leen di pousse ci jàng. mu ngi leen di dimbaleek ci moyens yi mu am moo xam dërëm la moo xam ñaar dërëm la. mu ngi koy def donc loolu ay dama bëgg ñu ñu xam ne Sénégal lañ am nañ ay ay ay exemplaires. lii mat wax ni émission bi moo ñu poussé. may waxee ci nit jël ay exemples yi. il faut nga joxe exemple. joxe exemple mais man sama sama sama. yow da ngaa a tudd sa bopp rek wala mu tudd kenn mais ñi nga mën tudd ci ay exemple tudd nga leen. voilà donc man baaxoo ma sax di wax ci nit. mais comme Sénégal la te am nañ ay exemple doomu Sénégal la ñuy waxtaanee doomu Sénégal la ñuy waxtaanee comme ku mel ni si waat loolu la ñuy joxe exemple coono ñaar dafa dem ñëwaat Akon dafa dem ñëwaat donc xam nga ba muy dem Amérique bi ñu commencé rapport bi yi dañ koy ree di ko kii mais hmm. après mu gëm boppam gëm boppam gëm boppam hmm. ba fi mu egsi mu egsi tey man loolu laay wax sénégalais yi bu ñu xeeb seen bopp ci Euh, bu dee ci côté diine ji tamit bàyyi nas tamit noonu la woon hmm. bi muy commencé tukki sëriñ sëriñ daara yi dañ doon wax naan ah ñun de jombi nañ sëriñ boo xam ne moom ab karta daal la nga bu topp dëkk a tukki rek sëriñ <laughs> boo xam ne du dem tool bàyyi na leen yéen ndekk mbir tukki bi euh, euh, yi ñu bañ a ñu bañ a moytu ko leen ñu bañ ñu bàyyi xel ci ñi leen di nax hmm. kii moom day laaj ku bëgg am xaalis moom lan nga koy digal ku bëgg am xaalis ñaar moo koy maye hmm. liggéey ak jaamu yàlla liggéey jaamu yàlla. Mm. secret bi nga xam ne mooy nekk ci wàllu jaamu yàlla. Mm. mooy istixfaar. 1947 mm. avant ñuy salaatu. istixfaar mooy astaxfirullah. astaxfirullah waaw astaxfirullah boo koy sikkar 1947 avant ñuy salaatu. 1947. waaw balaa ñëw asalaatu xayru mina nawm soo ko saxawee. balaa ngaa génn àddina dinañ la boole ci ñi am te yow da nga seeti na am nga dara. loolu moom lu wér la parce que yàlla ci alxuraan moo wax ne. yàlla euh, aji jéggalaakoon la. te astaxfirullah mu ne moo tax asamaan si di taw yaa ngi dégg moo tax gàncax yi sax waaye moo tax yàlla di wërsëg di alal di am. doom di ci doom di ci donc euh, maa ngi koy ko maa ngi conseillé kooku su bëggee alal nay saxoo istixfaar te istixfaar dafa am ñaari mbóot yu mu làmboo. mooy ñaan la jaamu yàlla la ndax soo jéggaloo yàlla dina lay effacer say bakkaar nga set nga nekk un saint yaa ngi dégg dina dina nekk tamit. demandeur nga ñaan kat nga te ñaan yàlla yàlla moo wax ne addoon ne astajib lakum ñaan leen mu may leen te yàlla sax mooy koo xam ne soo ko ñaanul sax mu mere la mhm. donc kon istixfaar dina la dindil meram yàlla mhm. dina la may xaalis ah. dina la may doom <laughs> mhm. dina permettre asamaan ci taw ndax yow sa man nga bokk tax ñi kon ñi ñi ñi garantir continuité eh, planète bi ndax ñi def istixfaar ñoo fi bàyyi àddina ba tey parce yàlla wax na ne euh, lawlaa difaa laay naasa baax baax leen la fasadati ardi bu woon euh, ñenn nit ñi ci ñenn ñi yàlla dana yàq àddina bi ah, donc ñooñu noonu boo nekkee euh, ñuy jàngkati ñu def istixfaar hmm. di nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi planète bi hmm. donc istixfaar mbóot la moo xam ne dafa yaatu hmm. ki bëgg alal su koy saxawee dina am alal ku bëgg doom bu ko saxawee dina am doom ku bëgg taraanga bu ko saxawee dina am taraanga waaw kii moom nee na ku ku bëgg ku ko seetal nee na moom seet la bëgg seet si yaramam boo seet istixaara moom moo ci légal mooy jàng julli ñaari rakka ñaan yàlla mu mu xamal la wala nga ñaan yàlla mu tànnal la loolu moom lañu reconnaître ci seet ci ci istixaara waaw euh, koy defee gane day julli ñaari rakka rek day julli ñaari rakka waaw tëdd ñaan amul waxtu wala ah tëdd laataa tëdd bi waaw ñaan yàlla mu tànnal ko wala saar saar mu utilisé ñaar waaw na ñaar ñaar rakki mar rek xam na moom dana ko xamal maa mu wan ko lu koy tegtal lu koy faj wala mu tànnal ko waaw waaw wala itam nga woo ko rek xaaral ma épinglé fii numéro téléphone am nga woo ko rek ba xam euh, moom mu seetal la bu ko bu bu ko jot a maye waaw bu ko jot a maye waaw ba tey yaa ngi tolloon sëriñ bi ci Sénégal yi nga xam ne ñu ngi bitim réew ah maanaam ñi bàyyi wala ñu moytu ñi nga xam ñu ngi leen di nax. Mhm. surtout ci wàllum jàng bi ñi ngi tolloon foofu am na njariñ torop nag. waaw waaw ndaxte boo xoolee bu baax boo xoolee du ma tudd tur. Mhm. yow mi làmboo loolu amaat di nga tudd seen tur. Mhm. waaye ñi ngi woon ci biir bitim réew léegi ñu ñëw ci biir réew mi. ñi nga xam ne ñi ngi fi nekk fii ci biir réew mi. di def ak di ni ko xale bi waxee di buuma ko bimmi. daanaka ñoom ñëpp boo xoolee exemple ñoom ñëpp. amul ku ci toog kii diplôme mhm. lu ñu tuddee diplôme diplôme yi nasaraan mhm. amul kenn koo xam ne sori nga ci dans les études mhm. mën naa ko na sax demoo au niveau de l'université kon loolu man secret boobu nekk ci entrepreneuriat secret boobu nekk ci investissement au niveau de Sénégal loolu lan nga ciy wax doomi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi toog fii te war a mën a bayyi war a mën a gori wala mën a def leneen dafa am benn loo xam ne da nga ma ko doon nettali ko jógee sa ziar ba Fass loolu ma ko mës a fàtte nga xam dem nga Maroc ba ñëw hmm. lépp loo seetlu mooy magum naar moo gis hmm. mi ngi toog ci plianam hmm. jàkkaarloog penk bi soo mi ngi xool banaanam di yëy kii orange di yëy wala mi ngi tiim kaamilam nga ne nga def gëstu ci loolu ndekk ñoom ñëpp li ñu tëddee fii xaw ma euh, mandarin ci xaw ma lan ci ndekk foofu lañ koy bay ñun ñëpp ndekk ay tool la ñor wàcc nañ liggéey waaw dañoo liggéey dañoo préparé seen noppalaat noflaay waaw nga netti lil moon loolu loolu lan nga ci wax mooy mooy jël les les li li sénégalais yi tënkee nit ñi mooy gàcce kersa ngor ak xeras jomb maanaam loolu moo ñu tarli def dara di rus am kersa pour def ko te fekk na loolu dagal la leew la loola may mën a may xaalis la nga war a mën a dund dund dund dund librement mhm. dara ñëw war a ñëw nekk sa alal mu wóor na la lii soxla nga ko mhm. hmm? lii soxla nga ko boo ko defee ci xew li mhm. mu yóbbu sa euh, euh, sa kii mu yóbbu sa fon mu yóbbu sa capital nga nga ne gàcce la nga am doom ngéntiwoo ko sama nawle yi loolu maa ngi maa ngi soog a suivre waaw yaa ngi yaa ngi comprendre maa ngi comprendre waaw mu ngoog loolu gàcce kersa ngor jom yooyu moo ñu moo ñu rey uh-huh. yooyu dañ buñ ko supprimer nit ki dafa war a di boo bëggee développé gàccee def liggéey bi gàccee mbay. gàccee wala ak ak ak ak sa jabar jur doom. waaw sa jabar jur doom mu wóor la wóor yàlla ne mënoo koo ngénte mhm. ngay dem di lepp pour ngénte ko. wala nga jël nga dajale wul la war ko investir. war ko investir nga jël ko nga def ko ci ngénte loolu gàcce la maanaam gàcce nga doon daw gàccee ngénte balaa ah moom da am na doom ngéntewu ko gàcce boobu moo la toroxal loolu soo soo ah, soo nekkoon face ak gàcce boobu mhm. loolu la dal. beneen bi ci topp mooy kersa yow mënoo dem Europe yaa ngi nar a dajale pour dem dem nga ba dem Europe jaral la dugg ci géej gi dem mën ngaa dee ci yoon wi te développé ci sa réew am départ ci sa réew jaralut la nga taaj taabal def ci banaana ak pomme ci bopp koñ bi dafa jaay nit ñi xam la gis da yaa koy jaay rus nga ko mm-hmm. wala def siwo fonde wala jaay kafe wala wër di jaay loolu rus nga ko mm-hmm. donc yooyu noonu moom lay wax ne yooyu moo ñu bloqué jeunesse bi am nañ espoir Sénégal neex naa liggéey Sénégal am na naaj Sénégal am na ndox Sénégal am na tàng ak sedd Sénégal nangu na mbay Sénégal nangu na lépp sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñoo nekk ci euh, dëkk àll yi jugee fa ñëw Dakar ñooñu euh, am na ci ñoo xam ne war nañoo mën a toog ci dëkk bi waaye am na ñoo xam ne waruñoo toog ci dëkk bi dañoo war a delluwaat parce que ñëw nañ ba xam nañ li fi nekk. te gis nañ ne affaire bi doxul léegi nag man sama am sama benn frère boo xam ne dafa tukki woon ne day dem bitim réew bi mu demee jaar Murtani dem yàlla dogal mu càng liggéey na fa nag jàng na fa am na fa xam-xam yépp mais objectif am moo nekkoon dem bitim réew ba un jour ma wax sama yaay ma ne ko euh, diw nañ ko wax mu ñëw parce que suñ ko bàyyee mu dem foofu noonu mu nekk noonu dina am sa ak yow mii sa bopp yow sa dëkkandoo yi di nga wax ne ah diw de demoon na waaye dara sottiwut mu ñeeku ma ne ko gis nga loolu ngay xalaat ma ne ko da dund loolu moo gën a yomb ñàkk sa doom ji parce que dafa nar a lang ma woo ko ma ne ko wàññeekul nga ñibbisiwaat boo ñëwee ñu xool beneen solution te yàlla dogal na ñibbisi na alhamdulilah rabil alamin génnul Sénégal mais li mu bëggee am na ko. macha allah réussir na lépp lu mu bëggoon a am macha allah. Mhm. donc loolu laay joxe comme exemple. soo essayé doxul da ngay bàyyi nga defaat beneen tentation léegi bu fekkee ne da ñëw Dakar bàyyi jógee nga dëkk ba Dakar doxul location bi metti na mbay mi njaay mi doxul marchand ambulant bi doxul lépp saturé na te yow am nga ay tool am nga loo mën a bayee mais xaalis bi nga xam ne moom nga am pour mën koo jaay def ko commerce da ngay jël xaalis boobu nga delluwaat dëkk ba nga defaat leneen soit mbay mi nga doon def nga reprendre ko. wala nga defaat yeneen création yoo xam ne lu kii mais nga defaat retour reculer waat pour mën a sauter wala dafa tubaab dafay wax ne faut reculer pour mieux sauter. pour mieux sauter donc. balaa mën a mbëkkante arrière. il faut mu arrière <laughs> ah. donc il faut nga nga delluwaat. soo delluwaatee euh, kii moom kii Amérique la may oowee nii ah ma wax na ko dama nekk en live. waaw waaw ah, ah yow de yaay sëriñ bi. <laughs> baal maa ngi nii direct Facebook damay waxtaan nii xam naa sama pare nga nga rappelé ma allah maa ngi jégalu ci loolu dégg nga. Hmm. Hmm. aywa incha allah. Hmm. dégg nga. waaw euh, loolu laay wax donc sénégalais yi. dañoo war a bàyyi ay gàcce yooyu. sama benn euh, sama benn grand frère dafa wax ne soo bëggee réussir dans la vie da ngay def nit ñëpp ay néew nga jàpp ne yow dong yaay dund. yow xam nga nit ku nekk ci biir salle de bain dafay def taatu neen hmm. ko neex lay sëggee hmm. côté bu ko neex lay jubloo côté bu ko hmm. kooku du am soo kenn ci foofu noonu loolu loolu soo ko am gëm boo ko amee da ngay mën a avancer parce que soo waree jaay di nga dem jaay su njaay mi doxul soo bëggee bàyyi di nga bàyyi parce que doo xalaat ne ah mun de doxul yow noo mujjee sa njaay ma ah kon nag foog nga euh, euh, da ngaa mujj bàyyi sa njaay ma ay yow kon nangam yooyu noonu tànk que yaa ngi koy suur doo avancer li ngay avant li ngay seet mooy ak système bi yow ak li ngay liggéey ngay yow yéen ñaar yéen a war a communiquer su see si ça marche su fekkee ne si ça marche pas tu arrêtes parce que la vie pour nga mën a réussir li nga xam ne moom moo lay may nga réussir dafa bari donc moo tax man damay damay euh, damay wax sénégalais yi ak jeunesse bi di leen wax ne il faut essayer pour ngeen mën a gagner seen li nga xam ne moom mooy seen seen. waaw kii moom nee na nee na dégg na sa boutique yi sax. dem na ci buti waaye bu doon sagom nga nga xelal ko loo xam ne dina ko mën a kii jëfandikoo ndax nee na nee na wàllum sëyam daal dafay métti nee na buy buy buy buy buy joteeg borom këram nee dafay métti lool nee na dem na fu ne def na lu nekk itam nee laaj boobu la am. yooyu dafa am ay cause mën na am soccet. Hmm? soccet waaw na xat am na ñoo xam ne naturellement dañuy xat ah ñooñu mën na am soccet mën na am kii nag mais am naa ci traitement bu bu baax boo xam ne. même bu fekkee day sëy te kanamam lu tooy xam nga charia dafa jàngale euh, sëy boo koy euh, boo koy def ak sa soxna mm-hmm. euh, da ngay da ngay foo ak moom ba yaramam tàng mm-hmm. ba ndox mu njëkk mi génn mm-hmm. loolu dina ko dimbale pour mu mën a am bànneex ak borom kër mais su fekkee ne loolu amul ah na na na fexee ñëw cabine ba mu suivre traitement bi nga xam ne mën nañ ko ko defal d'accord pour loolu pour loolu dëgg en général ñi xat ñi wala ñu am soccet ah wala ñu nga xam ne dañ leen a mës a violé nga xam ne psychologiquement voilà yooyu da leen di travail yooyu seen xel day téye seen seen kanam kanam bañ bëgg bu leen seen jëkkër laale rek automatiquement seen automatisme bi day déclenché rappelé wul li passé waaw violence boobu violence boobu day loolu da koy indi ñooñu nag suñu ñëwee dama leen waxtaane jox leen ay techniques yoo xam ne bu loolu ñëwee hmm. yooyu nga leen di yooyu la xalaat. ak yooyu quoi loolu souvent dafay am ci ay aspects yu bëri nag dana koy waral. loolu consultation consultation day laaj quoi soo ñëwee incha allah bu toogee waxtaan rek man danaa dem ba trouvé xam lan moo ko waral bu laajee traitement ñu defal la traitement.